tey ñuy dalalaat kenn koo xam ne responsable euh, politique APR ci euh, zone est la ñu gën ko xamee ci euh, Sidi Gassama Sidi dañ la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw maaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Omar mm-hmm. maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm mm-hmm. di la ñaanal ci kooru gii ñu dugg mm-hmm. yàlla defal ñu doon kooru jàmm salaam te yàlla bu mu nekk suñu mujjëlu koor di sant bu baax di nuyu aussi seen kilifa laajal sëy nga xam te ni mooy euh, fi mu toll nii kilifa CS euh, info yëpp muy émission bu ma miin di la sant di la gërëm yàgg ñu nga àndal. Euh, Siri dañuy wax rek nga présenté waat pour nit ñi déglu di ñu seetaan. waaw man moom benn simple militant la si APR parce que doon koo xamante ni wax dëgg yàlla mosuma def politique mais dafa am suñu benn maam boo xamante ni dafa am lu ñuy jàngal nañu politique yàtt la bu nekk ci digg yoon su ko saay-saay foree askan wi ñoo ciy loru su ko ku baax foree askan wi ñoo ciy jariñ ba tax na loolu moo tax nit aussi vraiment jàpp na ni képp koo xam te ni da ngay maandu maandul ci lu bon mais tey réew mi ni muy doxee politique ñun ñëpp war nañ ko def ndax loo xam te ni dafay dajale askan organiser leen ba ku mën a ne ci jàmm jàpp naa ni képp kuy yëngu ci loolu yaa ngi jaamu yàlla man benn nit laa boo xamante ni euh, def naa yëngu-yëngu yu bari Cees laa dëkk yaroo fi juddoo fi mosuma ko génn ba yàlla dogal fi mu toll nii tey. suñu borom xiir ma ci ma jàppale le président Macky sal muy premier parti boo xamante ni ci la mësa milité di ko jàppale ngir yan bi nga xamante ni sénégalais yanoon ko ko moo ci koom jàpp nag fi mu toll laajte woowu nga xamante ni jël naa ko ci képp koo xamante ni sénégalais nga war na moo dugal ci loolu sa loxo ci loolu ndax tey moom mooy njiitu réew mi te li mu yor nii su dee maam dem na ba dox sénégalais ñoo ci gis seen bopp su suuxee aussi sénégalais yi ñoom ñoom ñëpp ñoo ci ànd loru kon jàpp naa ne ku ci ne am nga ci yat woo xamante ni war nga ko mën a yor mu sa sas nga jàppale ko ngir yan bi mën a oyof ci kanam loolu daal moom fi mu toll lay tàmbale suñu émission waxtaan. Euh, suñu émission day tàmbali directement dem ci euh, le cas Thierno Alassane Sall mu doon euh, ministre de l'énergie jamono yële dañ ko wàcce woon diggante local yi ak léegi ñu gisoon ci yenn suñu émission bi nga xam ne mooy politicien Thiessois ak confrontation si di ñu invité woon la ci ngeen lancé woon appel président de la république dañoo bëgg ngeen ñëwaat ci loolu ginnaaw bi nga xam ne président dafa mel ni dégg na seen yuuxu boobu. waaw loolu moom dañ ciy santaat suñu borom euh, di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi salaam ngir réhabilité bi nga xamante ni le président Macky Sall réhabilité waat na ko le ministre Thierno Alassane Sall ndax man li sama waxu démb mooy suma waxu tey politique bi aw ma ci parparloo ndax le ministre Thierno Alassane Sall li ma gis si moom mooy fulla fayda ak gëm yàlla ndax li tax euh, parti APR bokk na ci ñi nga xamante ni fi mu toll nii. ñoo fi newoon ci njëlbéen ga di jàppale le président Macky Sall mais ci politique gu tey gis na ni politique ñu ci bari ñu fi dugg dañ ciy dugg pour intérêt personnel soit poste wala comme buñ ciy jëlee pour enrichir moom mu ñëwoon jàppale le président Macky Sall ci jamono bi nga xamante ni dara nekkul dara ba mu jël réew mi bokkoon ci jëwriñ yi nga xamante ni tànnoon nañ leen ngir mu liggéey ci réew mi ñu dem ba jëmmi jamono. président Macky Sall fi mu toll nii gisatul ni war na ko mën a euh, dugal ci gouvernement mu wàcce ko mais li ma gën a nawee Thierno Alassane Sall mooy engagement bi mu jëloon pour jàppale président Macky Sall xamal ko ni réew mi moom a ñor loolu jógu ci ba tey ndax giir bi ñu ko wàccee man xool naa ko ci biir ak ci biti amul benn bés boo xamante ni wàccul ci askan wi ngir lu falaat la président Macky kon ma jàpp ni moom poste taxu ko woon a jóg alal yi taxu a ba tay nak ñu réhabiliter wat ko bu doon lo xamanteni man interpeller wu le président ak kep ko xamanteni yéne won nga ko lool ta dox ci dëkk ñu xamni mom moom tay mënu ñoo dem sans mom nam nak leader yi fi nekk bari na mais def na fi lu reuy ba ñu bari ñoo xamanteni fi tay tey dugg nañ ci bir politique yalla ak Thierno Alassane Sall motax ñu dugg ci ñu doon lo xamanteni ñaanu nañ ko président président timit maam suñu lanc daanaka mel nañ ni jàppale nañ ci ba réhabiliter wat ñu sante président diko gërëm ci confiance bi nga xamanteni indi wat na ci am Thierno Alassane Sall leena mu jox ko maam secteur bu jafe ni énergie tay bép nguur bo xamanteni fim tolni basculé wuna ba réew ñu jox fim tolni di riposté japp na ne courant bi ci la bok kon confiance bi nga xamanteni ni jox nako ci Thierno Alassane Sall japp na ni fim tolni ni mom lu rëy la lo xamanteni ni yene ak yaakar ne mom dina ko ci jàppale te japp na di dina ci réussir kon nak li ñaan moy suñu borom defal ko jamm defal ko kàttan ba mission bi ko président jox mu def ci lu kawe njot ba Sénégal yëpp gis seen bopp ndax Thierno Alassane Sall neex na waxee ndax lu tax mooy moom bu ñu ko njëkkee far rek jox ko énergie premier maam fi mu toll nii interview bi ko journaliste yi interviewé mu ñëwoon ci mu jumaa mu sant dafa julli si wax na ni fi mu toll nii politique ci boobu moment te danoo nekk ci benn jafe-jafe muy jafe-jafe fi mu toll askan wi ci loolu lay jublu politique bi dañ koy teg ci côté ci kanam léegi avancé pour li ko jox mu mën ci am ndam.

mu nekk euh, responsable boo xam ne politique euh, fii ci Thiès ñu gis ni bëri na ci ay ministre yoo xam ne bu leen wàccewee waxuma la sax euh, politique waaye liggéey bañ nekkoon bañ leen di fal duñ fa delluwaat Thierno Alassane ñu wàcce ko mu delluwaat ASECNA continuer liggéeyam waaye tamit continuer ci biir Thiès ngeen nekk ñu ko wër est-ce que mën nga ci liggéey boobu nga xam ne mooy liggéey massification ak ni nga ko waxee léegi. waaw c'est que Thierno Alassane Sall li ma gën a impressionné ci moom mooy fi mu toll nii li ma la wax sànq xam nga bëri ñoo xam ne tey suñu leen wàccee ñoom dañuy jàpp ne fi mu toll nii euh, dañ leen a maam euh, toroxal ba tax na lan doon def duñ ko defati parce que dañ ne gor soo ko toroxalee yaa ko toxale soo ko teralee yaa ko tëralee mais man gise gisewu ma ko noonu ndax fi toll nii c'est un pour defar benn cité cité bii ku ne mën a ne ci jàmm parce que lépp loo xamante ni tënk nañ ko ci àdduna temporel ak spirituel su baaxee lépp baax temporel bi mooy lan mooy ñi nga xamante ni mooy tey ji ŋànk wàllu nguur yor doole ak état ak loi spirituel bi mooy sëriñ si nga xamante ni ñoo ngi ñuy woo ci yàlla ñu di tegal sunna si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir fi ñu toll ñu mën a egg suñu borom kon jàpp naa ne ñaari kilifa suñu jubee tegu ci yoon réew dox te Thierno Alassane Sall man li ma gën a impressionné ci moom mooy nee naa la duñ ko wàccee moment yi nga xam ne élection yi jot na muy lay local passé après fi mu toll ci la gën a takk laxasaayam jàppale président Macky Sall ba pare dellu ci bërëbu liggéeyukaayam parce que moom fi mu toll am na métier askan boobu avant muy dugg ci politique avant maam fu mu toll nii muy doon ministre avant mu nekk directeur général mais ASECNA la nekkoon di fa daan dooleem nekk doomu réew mi jàng boobu li mu a am ko nekk ASECNA di liggéey bi xam ne gisatul maam fi mu ne moom war na mën a jàpp ci nguur pour liggéey mais bi mu génnee ci nguur dafa dellu ASECNA teewul engagement bi mu jëloon ne man dinaa liggéeyal sama réew dinaa taxaw ngi sama réew loolu fu mu toll nii bàyyiwu ci dara chaque instant ñoo doon nekk sur le terrain ba ci département bi li ma lay wax ni fi toll nii xam nga état ministre moo nekk ministre mais tey nitu démb mi fi mu toll ba tey moom ngi leen téye gisuma ci moom arrogance gisuma ci moom impunité gisuma ci moom fi mu toll nii découragement boo xamante ne tey moom jàpp na ne su nekkul ci biir rek dootu ci dugal loxo loolu nag moom fi mu toll nii yéene la boo xam xamante ni wax dëgg yàlla kuy jàpp ni ku baax di nga xam ne kon Thierno Alassane Sall ku am engagement la ku am détermination la ku am conviction la Macky Sall ni le président de la République xam na bu wér ni Thierno su ko réhabilité mais liggéeyam aussi ci Thiès jàpp naa ne dina gën a dox. ndax liggéey na fi liggéey bu rëy boo xam te ne kenn du ko miin. Sidi liggéey boobu laa bëgg nga yaatal ko. waaw liggéey boobu moom le problème mooy. Euh, man du ma ci nekk di bamtuwaat parce que wax naa ni sa Seck du n'importe ci boo xamante ni tey Thiès dañuy ñëw rek fi mu toll lem ko mu dem man yàgg naa wax ni guy soo ko bëggee rey ba mu dee ci reen gi nga koy rey ba mu dee mais doo fa ne di felet ay xob. les locales passées dañ fa def erreur politique mooy lan fofu ku ne yaa ngi doon xëccu naan man ngir lan jàpp ne fi mu toll nii sans yow kenn du dem te Idriss Seck fi mu toll nii soo xoolee les années passées Abdoulaye Wade pouvoir la yoroon am doole. élection locale 2009 indi na fi mu toll nii ay kilifa yu mag yu wàcc dëkk bi def pré campagne mu tuur fi xaalis bu bare bare ñu dem ba élection locale. moom en personne mu wàcc ci terrain bi ñu tëj la campagne local mu wàccaat ak tout membre du gouvernement bu Ablaye Wade teewul lii daf leen laminé fépp ñun APR ak la benn bokk yaakaar ak suñu maigre moyen Idriss Seck yóbbu nañ ko trois appui parce que def na lu mu mës a def ci élection locale ndax premier point mooy moom def na coalition bu rëy ak ànd defar Thiès Talla Sylla ak mouvement président mouvement yu bare bari Idriss Seck campagne na ci campagne bi yëpp Idriss Seck jour élection yi wër na centre de vote yëpp demoon na ba jàpp ni fi mu toll nii mbir mi ñàkk na ko ko te ñàkkoon na ko ndax li tax mooy Idriss Seck fi mu toll nii demoon na moment yoo xamante ni bi muy ñëw en 2004 ñu dem ba 2009 doole ji mu amoon daanaka si suffrage am demoon na si ay 62 wala 65 pour cent ñun avec le Benno Bokk Yaakaar maam yóbbu nañ ko 3 appui bu am 34 pour le président Macky Sall en 2009 fi mu toll amu 4 pour tamit euh, bobu nga wax euh, Seck na centre vote yi ci jour élection yi fait tam ay kilifa a yu centre de vote mais dama lay wax doole bi mu am. parce que so le président Macky Sall ah, a a fait mais fam que la ñu ci bëri Sénégal lam programme xam Idrissa Seck li fi nekkoon mooy 2004 les projets yi nga xam ne Abdoulaye moo ko yooyu mu fi defoon 2004 après ba léegi lu fi indi teg lu extraordinaire depuis lors jusqu'à présent suñu may rek daf koy tayle fa ngi après jatara tey fi ñu doon bi ko wootalee nee na yéen Cees waay mun leen dem bàyyi ma mun maa dem bàyyi leen maa ngi jële lépp lu ma amoon bitim réew indi ko Cees mbay ndey pende sama soxna su dee fi ñu toll nii bañu bañ na ma ñëw takk ñaareel toog Cees

ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci mouvement présidentiel Maodo Malick Mbaye Mamadou Dieng suñu boole woon suñu force yëpp deux ans avant les locales ku ne fàtte sa bopp ñuy teg di dóorandoo Idrissa Seck xaj ñu ci moom mouvement présidentiel xaj ñu ci Idrissa Seck mais raw gàddu la élection locale la kooku bokkul élection présidentielle ni président législatif local la parce que local fi mu toll nii raw gàddu la suñuy dem di course ku la ëppale benn point mooy jël lépp majoritaire bi fépp ku ko gañ gañ nga la ci des lépp problème bi loolu la. mais nag affaire bi fi ne c'est possible parce que ginnaaw ndox tuuru na an baax moo ci des mais man dama ne déedéet nan dem ñu wutiwaat ndox ñu ne wutiwaate ndox mooy ñu ñun ñëpp nañ fàtte suñu bopp xam ne fi ñu jëm présidentiel la Macky Sall moo fa soxla ñu jàppale ko le ministre Alassane Sall sàll bu ñëpp defee ni moom incha allahu rabbi Macky Sall mën na fi am ndam fi ci Thiès. weekend heure bu wàccee moo ngi ci terrain bi moo ngi commune bi moo ngi département bi moo ngi jege population ba pare di leen jàppale ci biir ak kon nag Macky Sall loolu nga xamante ni mooy ay responsabilité mu jël ko jox ko ay nit pour ñu jàppale ko ci ren bi nga xamante ni sénégalais ñoo ko yàq joxu leen ko pour ñuy par parloo joxu leen ko pour ñuy toog seen i kër di xool ñu leen neex ñuy ànd ak ñoom da leen ko jox pour ñu jóg vulgariser li nga xam xamante ni mooy ay projet ak li mu bëgg ci réew mi ak fi mu bëgg a jëmee réew mi parce que le président mënul dem fépp laataa muy jël réew mi jóg na def lu ëpp 4000 villages ku ci ne mu dem taataan sa ay jafe ba suñu borom defal ko mu am ndam. mais tey président de la république eh, ci biir un ci village yooyu 4000 villages eh, gis nañu euh, président Idrissa Seck ci jamono yi weesu mu def ay tournée ci biir euh, Sénégal est ce que am nga ci euh, loo ci mën a indi non xam nga man dama faral di wax ni Idrissa Seck li mu bëggoon moom am na ko ndax dañ la woon Idi quatrième président suñu borom dogalu ndax gis nga nit toujours da nga war gëm sa bopp mais waroo toog ci ay calcul parce que maam Cheikh Rafal babul Mouridina nee na moo ngi xaar ba suba ñuy fay jëf ñuy fay wax di bàyyi jëf le président Macky jëf jëfkat bu mag la waxam bëriwul parce que bu jëf ci bëree lan la le président Macky Sall mais bu wax bu bu jëf jëf ci bëree nan la président Macky Sall su dee maam fi mu toll nii wax gi dafa bëri président Macky Sall newul foofu Idrissa wax rek la dese quatrième président la waxoon tey à l'heure actuelle am na président conseil départemental yàlla ci cëral na ko la ko téye. te xam nit ku mënul lekk lu dul suba sax le président Macky Sall gëm boppam tey moo tax mu téye réew ndax li tax mooy fii sa Jaar ak le président Abdoulaye Wade ah ba fi mu toll nii ñàkk réew mi foofu la président Macky Sall jaar ak président Abdoulaye ba jot réew mi mais xam nga différence bi lan la mooy ku ne da nga war a gëm sa bopp parce que le président Macky Sall dama koy saa su ne ci biir émission ku am fulla la ku am fayda la ku am ngor la ku am yar la ndax li tax. mooy moom day fi toll saa boo leen séqee teraanga du moom mooy mooy mooy njëkk a rocci di wor Abdoulaye Wade jàppale woon na ko jàppale bu wér ba président Abdoulaye Wade ne woon na président Macky Sall mi yéex cee jot laa doon tëju ndax sama projet yëpp bi mu nekk premier ministre ci la lépp du def kon liggéey rek la xam ñu gundu xataal ko mu dem assemblée fi mu toll xëy subi seen mbubb dem soxlaatul seen dara. négociation bu ne Abdoulaye def ko ak président Macky Sall dem wutali boppam xam ne suñu borom moy joxe nguur yalla jox ko mu am ndam loolu Idrissa yoonam la won mais ñak gëm bopam motax mu ñak ko léegi nag borom gémmiñ bu naaj di wax jamm le président fi mu jëme réew tay tey képp koo xamante ni iñaanoo ah fi mu nekkoon nit koo xamante ni fi mu toll nii yaa ngi dégg par parloo xam nga ni ci trait bi mu ko teg baax na. Sidi dañuy wax ci li nga xam ne mooy alxames bi ñu weesu. Euh, yàlla dogal na ndox mu bëri wàcc ci biir Thiès am na ci sax euh, li nga xamante ne mooy inondation am na ba sax am na koo xam ne ñàkk na bakkanam ginnaaw bi nga xam ne doon na ci réparé ab fil foofu ci jaxaaw euh, yéen ngeen nekk ay woy politique am na ngay àddu ci ndorteelu nawet boobu fii ci biir Thiès. waaw dañuy santaat suñu borom ndax fi mu toll nii ndax réew nawet moo ko yor di ñaan ndoxu jàmm ak salaam yàlla defal ñu nawet bu barkeel ba boykat yi. képp loo xamante ni fi mu toll nii am nga ci fi mu toll loo yaakaar suñu borom defal la kaw njort ba lépp ñoo ci jàmm mais tey man damay interpeller pouvoir central bi di interpeller pouvoir local bi parce que problème inondation bu mënul jóge ci réew mi yàgg na fi mais le président Macky Sall nag def na ci jéego yu bëri par rapport ak li xewoon bu njëkk ndax moom tey moo ngi saytu alalu askan wi ba fi mu toll nii dërëm bu ne fu mu war a dugg dina fa dugg soo pour jël maam fu tul dëkk bi tegaat ko ci yoon man bokkuma ci nga xamante ne nan su nekkul ci état rek duñ liggéey tey pouvoir central bi lépp loo xamante ne mën nañ ko dimbale pouvoir local bi dañ ko war a def mu nekk transparence nekk loo xamante par parole doon képp ku bokkul suma maire yi suma gouvernement maire yi boo mën a am man duma ci dugg loolu man du ma ko cautionné mais tey gis naa ne fi mu toll nii daaru salaam gëlay gis naa fa ay kër yoo xamante ni am na problème te loolu yëpp man li may gis mooy pouvoir yi fi njëkk a jaar ñoo deful seen wareef ndaxte tey yoonu ndox mënoo fa ñëw di fa def ay kër bàyyi population bi ñu fay dëkk te doo leen wax dara xëy inondation am. population kooku responsabilité ñu yor service technique la ak état ak pouvoir local kon ñi fi njëkkoon jàpp naa ne ñoo bayul seen waar. le président Macky Sall nag soo gisee acte 3 bi am ni mu desaat décentraliser fi mu toll nii collectivité locale yu bari pour ñoom ñu doon tamit ñoo xamante ne dañuy nekk ay plein d' exercice. pour mën a gérer seen gox goxaan ku ci ne fi mu toll nii càmbar li nga war a càmbar liggéey mën a avancer mais nan ko ñaanal ndax li tax mooy depuis 60 ba tey ñi fi jaar bu doon am nañ vision ak calcul bi nga xam te ne moom la président Macky Sall am kon tey fi mu Sénégal jàpp naa ni dinañ dépasser ay problème inondation le problème nag mooy maire am na ci loo xam te ne seen compétence la bu ñu war a def parce que lépp loo xam te ne fii nag mooy premier pas war na mën a jóg saytu askan wi. jàppale leen état tamit ñëw dugal ci loxoom kon daal ñoo ngi ñaan fi ñu toll yi yàlla na doon maam loo xamante ni dinañ ci mën a def ay jéego ba def assainissement yu baax ba tamit ñi nga ne ni ñooy ñëwaat suñuy daggaat ay kër dañ ko viabiliser techniciens yi ñëw xool ëllëg ndax du jural askan wi dara. loolu daal fi mu toll moom laay wax di ci sànni ay kàddu ndax man it aussi vraiment sama xam-xam sorewul ci loolu mais maa ngi ñaan daal suñu borom defal ñu jàmm defal ñu tawfeex. Euh, sëñ Siri dañuy wax euh, ci li nga xamante ne mooy réalisation président de la république fii ci biir Thiès waaye tamit euh, ak ci biir dëkk bi surtout ak plan PSE parce que sànq am na loo si jukki nii président am na fu mu bëgg yóbbu réew mi am na loo xam ne xalaat na ko dañoo bëggoon nga di ci ay leeral. waaw xam nga le président de la république soo fàttalikoo bi muy jël réew mi man jàpp naa ne Sénégal bu màggat. la donne le président Macky Sall mais communication bi dafa war a ndax Umar yow sa këru bop bo don tabax tay su dee R plus 1 la wala terrasse kese nga doon ab gor amo ben ressource wala amo ben moyen mais est-ce que mën nga xey tabax ko ci ñetti roolaat c'est pas possible mais am rew nag kon mënoo ko tabax ci ñetti at rew mo xam tane ala am suñu ressource ñun tay lan la ñuy pour ressource lo xam tane fi dañ ne lii or la bu wér bu bari bu Sénégal am li jamaa la bu Sénégal am li pétrole la bu Sénégal am. ñun fu ne ci taxe lañuy dund te taxe yooyu fu ne tey fonctionnaire yi nga xamante ni ñoo jàngal sa doom fonctionnaire yi nga xamante ni ñooy faj ñooy faj ni fonctionnaire yi nga tey ñoo nekk ci napp bi ak ñi nga ñoo nekk ci mais kon président Macky Sall mënul fekk tey soo xoolee réew mi bi fi jóge dana woon fii ak deux mois duñu fay salaire kii ñëwaat su dul man duñu boobu léegi kan nga gis ban fonctionnaire moo daf fay gisoo ko actuellement dans l'élémentaire, si président def na ci lu yu bari tay stabilité amna ndax tay so bu de dowlin bourse familiale fi couverture maladie universelle gis nga ko à cinq ans fi mu ni impôt bi nga xam ne muy affaire salaire Macky Sall fi ci yu bari tay réforme yi nga fi na ci dëkk injustice président ngi pour lépp loo xamante ni fi mu toll comme comme mu dëkk bi la pour tegaat ko ci yoon pour askan wi mën ko jariñoo ndax man li ma gën a naqar yi ci politique bi tey mooy cent 1960 jusqu'à présent da ngay dem nga xool fi mu toll dans les villages ah yoo xamante ni jege na poste santé amu fa parce que collectivité locale yi soo xoolee tey da ngay gis 51 villages lu mel ni Tassette laa la jox un exemple y a 51 villages actuellement ñaari poste santé moo fa am man dem naa ci benn village bu ñuy kër Ndiogou Ndiaye amul yoon. amul poste santé amul dara te village bu 1901 la woon kon kat mooy responsable régime yi fi njëkk a jaar mais na le président mii mandat la defagul trois ans te tey def na jéego boo xamante ni suñ ko mayee maam li nga xamante ni mooy battement bañ a yàkkamti mais moo mooy teg Sénégal ci raay yoo xamante ni képp koo xamante ni am nga vision am nga compréhension xam nga président Sénégal Macky Sall fi mu jëmee réew mi baax na kon man li may wax mooy yéex a jot gi président Macky Sall yéex a jot réew ak yéex a jot bi nga xam te ni yéex nañ ko jot président Macky Sall ñun loolu la ñuy rëccu ndaxte réew mi fi mu toll képp koo xamante ni soxoroo par parloo et puis iñaanoo xam nga ni le président Macky Sall moo ngi liggéey te boole ko ak wax mais ñun ñi nga xam te ne ñoo ne ci ginnaawam war nañu vulgariser nag li nga xam te ni mooy liggéeyam ak seen projet tey deux mandats incha allahu rabbi dina ko purger su paree keneen kii ñëw dina teg Sénégal ci raay boo xamante ni si kanam tuuti dina gis parce que PSE bi horizon 35 la. kon moom fi mu toll nii tey boppam taxu koo jóg ndax vision la boo xam ne dina ko fi teg liggéey ci tuuti keneen ñëw egale keneen ñëw egale ba émergence bi nga xam te ne moom la ñuy ñaan suñu borom yóbbu ñu fa. Euh, sëñ Sidi dañuy ñëw euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, réalisation président de la République parce que bokk na ci suñu benn émission boo xam ne yaa ngi doon tudd yoo xam ne daf ko fii ci biir Thiès mais tamit dañuy wax parce que askan wi am na ñoo xam ne nañu dëkk bi dafa dafa dafa metti maanaam daal koppar gi ni mu doon demeek yooyu demeeti wi ñu bëri ñu ngi jooy loolu yéen euh, en tant que politique ak tamit euh, li nga wax léegi di défendre euh, président ak régime waaw dëkk bu metti actuellement ni fii de partout dans le monde foo dem crise baa nga fa tout récemment dix ans ci ginnaaw Italie ku fa demoon wala France wala Espagne soo fa demee deux ans soo ñëwee tabax kër ah mais ñoom en personne yo yo la gëna a ci crise tay suñu doom yi nga xamne ñu doon jëgë di taw dem moodu moodu ji ñoom tey fi ñu ni nii actuellement kenn mënatu fi duggal dara kon crise bi c'est mondial mais nak nan sant yalla ñun Sénégal parce que dafa am ay xéewal ci am yo xam suñu borom moo ñu ko defal tay jambat bu upp baaxul parce que ay jurit lañ 95 musulman ñoy yeewoo Sénégal mais so xé yaa nga añ yaa ngi reer yaa ngi ndékki soo demee ci banque yi fin de mois ñu wara a ko ñoy ngi fayeeku ñu doon liggéey ñoy am xaalis kon crise bi lan la problème ban Sénégal mu la am problème mooy Sénégal c'est que nit day gàttal lu rafet man maa ngi nii fi toll nii sant yàlla yaa ngi sant yàlla ñeneen ñoo ngi sant yàlla soo xëyee yaa ngi yaa ngi reer yaa ngi dégg waxal rek dañuy waxtaan mais xam nga lu mu nangul ñu ngi ñu ngi diaboliser fi toll ñëw pour contrecarrer le président lépp loo teg nga ne baaxul. posi position mënul ñàkk ci réew opposition mënut a ñàkk ci réew.

ministre bu ñu tëb nekk ministre am yoo xamante ne tey ñoo ngi député deux ans ci ginnaaw wala trois ans ku la waxoon ay député ngeen doon du ko gëm kon nit bopp yàlla nit ki mënul lekk lu dul sa gëm mais xam nga li ma la bëgg a mooy nit du diaboliser nit ku baax fi mu toll nii instant yi soo gisee lu baax da ngay taxaw cautionné parce que loo yéene sa bopp da nga ko war sa morom loo bëggul sa bopp waroo ko bëggul sa morom le président Macky Sall képp koo xamante ni xam nga ko xam nga ni tey fi mu toll réew mi moo ngi dox ci ni mu war a doxee. parce que ressources yooyu ma la amu fi pétrole du jama du dara ay taxes kese la ñuy doxee taxes nag yooyu soo ci bëggee organiser am réew téye fi mu toll nii doxal réew mi mais il faut fi mu toll nii ñii nga xam te ne liggéeyuñu bëgg am lu la gaañ loolu moo foora jógee. mais sëñ Sidi fi mu toll nii am na fu ne pétrole feeñ na fa. waaw waaw mais xam nga loolu xam nga loolu xam nga loolu loolu ay wax la yoo xamante ni. Mhm. dañ ko wax ni pour la forme. mais réalisation amagu fi gisoo ko tegoo ko sa bët yow ko teg sa bët technicien expert nee na ñu ci waaw mais loolu loolu na fi xam nga le président comme li ma lay wax na la mom am na yéene pour doxal réew mi loolu su ci gisee loo xam te ni njëriñ Sénégal dañ xar tànk tuwee ndax moom loolu rek lay xëy di dox le président fi mu toll nii moom mooy premier président bi nga xam te ni tukki nemmeeku bu mu defoon war na fépp localité yi parce que boo demee ci réew yi gën a xarala tey fi mu toll nii ñu jàng ba dem ci université am ay maîtrise lu ne am nañ ko ci wàllu métier électricité bâtiment maçon

toog càmbar xool les techniciens ñi nga xam ni seen xel màcc na ci mbay ci sàmm ci jàngale ci lépp ñu toog waxtaan bi ñu càmbaree ñu ne dëkk bii kat pour ñu soqali ko nangam moo fi war a dugg mais loolu du tey tey nga ko réaliser xanaa soo demee marché war a togg sab añ ah da ñëw jël yi yaag ceeb baag dawlin jël lépp sóorandoo ko à la doo togg mais lu ci ne étape par la da ngay Euh, dañuy wax ci li nga xam ne mooy euh, le parti APR nekk euh, parti président Macky Sall tey Thiès ñu gis ni am na leader yu bëri ñu ngi fii waaye tamit am na ñenn ci ay ndaw wala ñenn ñoo xam ne Euh, ñoom ñoo ngànk parti bi ci biir dëkk bi daan nañ fa yóbbu mais ñoom gisuñu seen bopp ci yenn pal yi wala ci yenn euh, li nga xamante ne daal war a nekk ay koom yu jóge ci parti bi ñëw ci ñoom yéen ngeen nekk woy politique nekk ci biir système bi ban jàngat ngeen ci lu wala ban leeral. xam nga politique moom li ma la wax. ñëpp nañoo doon nekkandoo kilifa yor ay responsable mënta ne parce que sooy seet tey parti politique yi man li ma ko wax moomuñu Sénégal tey ñi nga xam ni ñooy fal ñi fi ne yor suñu institution ah. mom ñooñu demuñ ci ay arène politique politique ñu man limay wax moy li nga xamanteni mom la la wax suñu jël benn émission amna kilifa bo xam nee na lu bon mën nga jaamaan mais lu baax do ci maan te lu baax fi mu moy politique bi mu la wax mais ni li tax mu yàq moy politique politicien parce que yonente bi sallallahu alayhi wasallam ah mom mo nekkon fi mu toll nii ba pare yor état di nobe ay ministre ak gouverneur mais da ko tegoon ci way ba way ba moy lan li yef askan wi la fi tol ni ku ci ne la nga yolal di ko jël pour wax la ben anecdote ci ben mbir mo xamanteni am bu ñu wax Omar ibnu Abdul Aziz koku jamono bi mu nekké amir nga xamanteni état bi moko ko ci loxo bopam suñu musul toog ci salu conseil des ministres tal ay lampe di waxtan lu jëm ci état suñu noppé waxtan wo jeex ñu dugg ci wala waxtaanu jamono loo xam te ni ñoom kilifa yi ñoo doon toog di wax sama kër ga wala fi ne sama soxna sa ñu fay làmp yi suñ ko laajee lu tax mooy li ñu doon a fay mais li ñuy waxtaan suñu biiru la mais nag fi mu toll nii su tey yow da ngay jiite réew comme le président bi mu am parce que tey ñëw naan fi mu toll nii affaire bi doxul ak nangam sàngam mais yu yomb yi fi ñu te léegi li koy doxal mooy liggéey tey moom fi mu toll li mu bëgg mooy suñu demoon am ci dëkk bi nga xamante ne mbay mi li ñu lekk fi leen koy bàyyi li ñuy sol fi leen koy bàyyi maam suñu jàng lépp fi lay am réew mi dox ñëpp di jigaan di ñëw bu baax fi mu toll di nga xam ndax président Macky Sall am na yërmande wala am na yéene Sénégal. li ñuy sol NSTS. waaw dama ne tollooguñu foofu ñun puso sax dañ koy jéegaane ci biti puso puso bi gën a ndaw defaruñu ko kon ñun lu na am léegi nga bëgg fi mu toll lépp président ne fa mënta ne. qu'on se dise vérité li fi nekkoon fi mu toll nii yaa ngi dégg tappalee fi newoon. ki liggéey ba dee du am ki nga xamante ni fi mu toll day tàppale mooy xëy di am mais réew moom fi mu toll fu mu jëm que réew moo xamante ni aussi man maa ngi interpellé le président jeunesse bi teg leen ci yoon ndax réew moo xamante ni jeunesse bi ci la président de di génn ci la ministre di génn ci la ab docteur di génn ci la imam di génn mais jeunesse boobu aussi il faut ñu teg leen ci yoon woo xamante ni ëllëg di leen doon royukaay ba ëllëg réew mi mun a tegu ci loxo yi wóor ndax Sénégal aussi wax dëgg yàlla suñuy valeur lu ci bari ñoo ngi koy ñàkk parce que wax naa la léegi njëlbeen ne la ñaari mbir su doxee réew dox mooy spirituel ak temporel parce que même xool suñu bokk chrétien soo dëkk ak ñoom da nga xam ñi am na yar am na éducation teg na leen ci yoon rawatina ñi nga xam ne ay jullit te Sénégal pour cent yoo xamante ni fii tool nii nañ ko bàyyi président Macky Sall moom la yàlla fal ñu fal ko à 65 pour cent tey su réew mi doxee maanaam fi tool nii yaa ngi dégg ñun ñëpp ñoo dégg suñu bopp su échecgee ñun ñëpp ñooy échec kon ku baye mom suñ tol ni ne ci souf di gori tànkam yoy nañ ko baye gem ni ku nacc du wax jam ta tal bu yalla tal sal ci mat bo gën fay ko so bëggee jam so ci sànnee mat sa xol day neex nga la ci jam so ci sànniwul mat suñu borom day jakar lol ta boba fi tol toll yaay torox le président de Macky Sall tank suñu borom fi tol neena di la fi tok dina am deuxième mandat yalla dina ko jàppale lol mom moy li leer ñun fi tol engagement lañ am depuis lors jusqu'à présent ñu teg ko injustice mu fouté futeeku xeex pour réew mi boobu léegi ñun génnuñu ci ñong koy jàppale guddi ak bëccëg derrière le ministre Thierno Alassane Sall am yéene nag fal ko 2017 ci premier tour. Euh, qualité bi président de la république am ci euh, Thierno Alassane Sall ba dem ko énergie sank wax nga né nga dëkk bu jog bu né énergie mo tax nga jog dañuy wax sax ci ci réew yu mag yi nga xamante ne seen wàllu bopp euh, dañ daan toll fo xamante Euh, li nga xamante ne moom mooy énergie da daan yëkkati ay coow wala yëkkati ay fitna ci biir dëkk yooyu ñu gis ni tey le ministère Alassane Sall eh, dénk nañ ko am nañ ko dénkoon ah dañuy wax ni eh, dénkoon nañ ko ARTP te ba ñuy fekk ARTP tamit dafa xawoon a sooxe président dénk ko ko am loo xamante ne jubbanti woon na ko est que tey mun nañ jàpp ni li nga xam ne mooy énergie la fa sooxe moo tax président fol li directeur de cabinet boo xam ne amoon na ci moom confiance daal di koy dénk Senelec jël Thierno Alassane Sall dénk ministre de l'énergie est-ce que tey kon day deugal ni président équipe bi mu yor taxaw nañ pour yóbbu Sénégal ci PSE bi mu wax. waaw mais so gisee euh, problème Senelec dam bëgg ñu retourner en arrière parce que nee le président Macky Sall réew bu ko jot ci réew market la jotee réew parce que yow loo nek nekk xale comprendre nga ni président Macky Sall tey bi muy jot réew courant da doon couper fi fajar ba 7 h ci ngoon plus de 12 heures de temps ñëw ñuy am. ba fajar mu coupé waat am ñoo xam le matin la ñuy coupé 7 heures ba ba guddi dëgg la dëgg loolu fekkal nga ko fi mais ay la yoon coupure yi fi mu toll nii coow yi maam bëri na mais coupure de temps gisoo ko fi courant bu coupé 30 minutes na fi plan tàkkal. boobu fi mu nii dama ne la xoolal li mu ñu coûté woon ñun. plan tàkkal li mu ñu coûté woon parce que am na loo xam ne yéen ñu ne ci biiti mënu leen ko xam mais la mu doon coûté Sénégal suñ ci ko néewoon Sénégal dinañ dama ne la le président Macky Sall nan ko ñaanal Umar man waxuma pour par parloo tey président Abdoulaye Wade kenn du ne amul lu ñu fi def mais ñun dañuy am yéene nag président defi lu ëpp lu fi Abdoulaye Wade def parce que état continuité la mais tey projet yi fi Abdoulaye Wade bàyyi Macky Sall amul benn bu mu ci bàyyi eggale parce que boo demee Casamance bato ya eggale na ko projet yi fi nga xam ne ni mooy aéroport bi Blaise Diagne moo ngi moo ngi moo ngi ci en route forage fi mu toll nii barki dem forage war na ko fi mu toll def ci biir Sénégal dëkk yu bëri war na yóbbu courant am électricité ci village yu bëree bëree bëri lu ëpp juróomi téeméeri village loolu nag fi mu toll nii saa yi mënoo ko def ci benn fan vision la boo xamante ni man gis naa fi njëkkoon jaar depuis 60 ba tey su doon nekk nañ ci loolu liggéey ko bi pare nañ parce que Côte d'Ivoire jege rek soo demee su tawee nii ba pare amul fenn fooy gis ndox jamono ufiet waa ñoo ko liggéey kon Senghor jaaroon na fi ab Abdou Diouf jaar fi Abdoulaye jaar fi président Macky Sall fi mu nii après indépendance la judd tey mu jël réew mi def trois ans ñetti at loo ci mën a def ci réew ba pare fekk fi réew moo xam te ni problème kese la ndax tey ñun lépp loo xamante ni fi ne teg nañ ko ci biir ay date kese la woon date yooyu ko fay ah te loolu fi mu toll président Macky Sall moo ngay fay boole koog di fay ay salaire boole di def ay projet mais projet yi nag fi mu toll appel d'offre day am ah léegi ñu teg projet yi doon loo xamante ni fi mu toll du tey tey lay sotti. bu bu bu ñaawal naan ay Macky ñëw na digg nañu lii moom fi mu toll danaa damaa càmbar. Mm-hmm. dama càmbar. Mm-hmm. ne fi mu toll instant kër gi ah xool naa ko gis naa ne fi mu toll am ci million moo ko war a tabax. waaye sëñ Cissé dañuy wax parce que président de la république am na ñu naan après indépendance la judd donc war na am xarañ ak mat gu toll nii wàccal boppam ci euh, terrain bi xool li nga xam ne moom la askan wi dund waaye tamit xool li nga xam ne mooy ay projet yu mu teg ñenn ñi ñu ngi wax ni gis nañu ni président daal ñi ko dar waxuñu ko li nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi. waaw su da nga ñëw pour ànd ak du mëne ko muy kilifa parce que ñun dañu faral di wax bour mais bour mom benn bour moy suñu borom mais bour suñu borom moy jël ci cëram def bour muy président de la république parce que tay amna ñu wër ci ginnaawam nek ay conseil am mu am lo xamante ni ñun nit ordinaire yi amuñu ko mais nit su da nga koy dimbali kilifa nga and ah, dar ko da nga koy darle darle bi moy lan moy tay da nga koy orienter diko fatali ndax tamit man jafé jafé askan wi dama ci jouer ndax tay président Macky Sall and bi na and ànduñu pour la forme pour mom daf ma neex wala kanam mom neex pour ñu and politiquement non non non mais dama gis vision bo xam te ni teg na programme bo xam ne suñ ci doxé ñu ñëpp ñu and duggal suñu loxo sopp ëlëk di nga ne ci jamm nga ne ci jamm suñu doom aussi suñu ñëw dañ fekk dara motax ma jappalé ko légui nag dama ne la tay tay tey lépp mënta sotti Umar li ma la lu leer la parce que émission bi la tax ñukay def mais fi tolli nii nan sax Euh, euh, maam fi mu toll nii contacté nga dama dama la soxla may la fi mu toll nii maa ngi tal bërëb sàngam ñu organiser ko bu mu mën a nekk. wax ma daal am réew. lépp loo gis organisation la. Mhm. te léegi réew na soo ko bëggee organiser il faut nga teg ko ci yoon. dañ ci tabaxal benn question rek euh, dafa am député Hélène Tine honorable député dafa am lu mu waxoon ci infrastructure mais Macky Sall mënut a dab Ablaye Wade ci infrastructure yow looy addu ci loolu. waaw dama ne xam nga loolu moom suñu kanam xam nga tey ku ci nekk su dee ñëw def dara. parce que abdoulaye mën na def infrastructure suba mag sall ñoo def leneen mais toujours rek maam fi toll ma li may wax ni sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar abdoulaye lu mu fi def mag sall def ko fi keneen def ko ak kii di ko fi def ñu ñëpp ay sénégalais lan mbirum daal mbirum soo nee ci biir soppi sa loxo ba pare jàpp ci liggéey bi infrastructure mag sall yu fi def tey ilaa touba mu ngi fii projet bi taxaw na muy 416 milliards ci gis nga infrastructure yu mu def ak dëkk yépp ci sénégal fuutaak fu ne pont yi ak forage yi wax naa la ko léegi nag bëggoon naa ñu dugg tamit aussi ci détail bi nga xamante ne mooy li ma la wax léegi muy muy muy muy muy muy détail bi ma la léegi bëggoon naa ñu dugg ci waxtaan ci euh, ban détail ah sëñ Sidi waaw mhm. le parti socialiste effectivement parce que tey gis nañu parti socialiste am nañu position ci euh, nguur gi am na sax euh, yoo xam ne ñoom jot nañ ko àddu génne ni ñoom dañu am candidat boo xam dana jaakaarloo seen mbër di Macky Sall ci jongante yi ñu jëm yéen euh, lan ngeen ci àddu. waaw c'est que xam nga man ñu ne parti socialiste li ma lay wax mooy cere la ak soow dañuy ànd naan ko wala ñu ànd tuur ko ndax le président Macky Sall ko xam-xam ne am na yar am na teggin nekkul kuy boddi nekkul kuy siis nekkul kuy soxor xam na ni askan ñoo ko fal tey siège bi nga xam te ne mooy siège président de la république Sénégal moo ci toog ah ci xayma ba la ko déggee loolu day mel ni fi mu toll nii lii gone di wax ñoom ànd nañ ci. te ñoom it lañ jël seen i responsabilité xam ne bilan le président Macky Sall ñoom ay comptable lañ ciy doon ndax mënuñu ànd gañandoo di gouvernandoo ànd dem législatif ñoom ñu am 20 député ñu ànd dem les locales ñu gañe ay mairie yu bëri tey ñu bëgg taxaw naan ay président Macky Sall lii wala laa suba di séntu ay problème fa tey yooyu fi toll yi dafa doon lu sew daal ci ko ju sew la yaa dégg le problème mooy PS man li ma leen wax mooy instant yi nan ànd xam ni ñoom réew mi yor ko 40 ans ñu koy leen lu pro le président nag moom fi mu toll nii du boddi kenn wax réew mi képp koo xamante ni sa pàcc mu ngi mu lay jàppale jàpp ne yow am nga loo xam ni mën nga ko indil réew mi moom fi mu nii dina la woo nga dugal sa loxo ci réew mi. sëñ suñu émission day jeex euh, say kàddu yu mujj. waaw di la sant di la gërëm parce que vraiment euh, may nga ni opportunité ñu mën a toog di wax suñu ay xalaat di ñaan koor gi comme li ma la wax suñu njëlbeen émission yàlla bu nekk suñu mujjal koor di ñaanal le président Macky Sall yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko ndam maam ba 2017. wala 2019 xamuñ ko ne élection yi ni muy demee suñu borom defal ko ci lu koy njot ba mu gagné ndam lu sedd guy ci premier tour. di ñaanal aussi le ministre Thierno Alassane Sall lii ko mam président Macky Sall jox mu am ci mom yaakar yalla na ci def lu kawe njortam ba sénégalais gis seen bop de passage ma ngi nuyu sama ay xal lam sen di nuyu seen Diouf di nuyu sama xarit Ndiassé. ak ñëpp ñoo xamante ni ñoo ngi nekk ci derrière le ministère de la santé di ko jàppale maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu doon seetaan dañu déglu ci suñu émission politicien thiessois mu doon dalal responsable de l'APR bu fare ci zone est di euh, Serigne Sidi Gassama Thiès Info ak Thiès TV ñu ngi ciy profité di jaal mboolem ki nga xamante ne mooy Ousmane Thiam foofu ci Jaxaaw waaye tamit di masaw euh, mi nga xam ne. sotti na daal di di euh, équipe technique TV émission